مشاهدينا الكرام ومتابعينا عبر تلفزيونكم المفضلة تلفزيون فيتور ميديا نحييكم بالتحية الإسلامية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futur Média nuyu leen waaye itam ziar leen mbokk mi ngi noonu ndokkeel leen ci euh, weeru teddu barkeel wi rawatina bis bu tedd bii te mooy bisu aljuma nuyu mboolem xalif généraux yi ne ci biir réew mi ñaanal leen ñoom itam yal yàlla gën leen fi bàyyi nu ànd ak wér gis ngeen ñu ngi fii ci Medina Baye ñu ngi fii ci dëkku Cheikh al Islam radiyallahu anhu guuru yàlla bu tedd boobule nga xam ni boo ñëwee ci jaww ji nga xool ñu ngi ci ëtt bi nga xam ni fii la daan daagu waaye itam fii ñu ngi fii ci nga xam ni Euh, fii la daan jullee waaye itam fii la daan toog daan jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala rawatina soppeem ba sidina Muhammad waaye itam rawatina ka mu jeexoon takk te mooy cheikhuna tijani sharif di cheikhu tariqati wa ustaadul xaqiqati zu manaqibi zahirati wal karamati al bahirati qutbul akbar alamul ashhar shariful afif zu xadil munif taajul arifina xaatimul awliya bi ijmaa mbokki mi noonu ñu ngi ñaanati borom bi subhanahu wa taala ñaanal xalifa bi Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Niass mu yàgg fi lool te wér nuyu bu baax a baax imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ak mbooleem njabootu Cheikh al Islam ngépp ñaanal leen ñoom itam yal na yàlla yokk leen dëgëral nuyu bu baax a baax Abdoulhaaji Abdoulaye Muntaxa moom itam nuyu ko ziar ko incha allahu taala waxoon nañu leen télévision Futur Média dara dara dara du leen ump ci xew-xew yi nga xam ne mi ngi am ci këru diina ji bërki démb ñu ngi bàyyi ko ci dëkku Cheikh al Xadim mi ngi noonu tey jii ñu ngi fii nag ci dëkku Cheikh al Islam radiallahu anhu incha allahu taala xam nga ziar bu mag boobu la nga xam ne njaboot gi ak ndog taalibe yi mboolem ñi nekk ci biir réew meeg bitim réew ñoom ñëpp daañ ñëw fekk si incha allahu taala ziar bi nga xam ni ñu ngi koy defal Cheikh al Islam pour waajalee ko gàmm gi nga xam ni fii la daan toog moom Cheikh al daan jàngale asiratu nabawiya daan ko jox taalibe yi daan leen wan Seydina Muhammad dundi nam nga rawatina waaye daawul doyal moom Cheikh al Islam bi day gàmm ba ñëwaat loolu lépp dara du leen umpu fii ci télévision Futurs Médias incha allahu taala euh, maa ngi toog nag béti béti béti maajo nga xam ni yeewu leen prise bi sak aljuma moom laa ciy àndal béti maa ngi lay nuyu. baax di la ziar di ziar mbokk téléspectateurs yu ñu seetaan à travers la télévision Futurs Médias di leen wax dal leen ak jàmm ci Yeewu Leen Plus tey nag Yeewu Leen Plus dafa def déplacement ñëw ba kaw Kaolack dëkk bu sell bi dëkk Maam ña Niass Medina Baye ñu jàkkaar jàkkaarloo ndaw ñi nga xamante ne dañoo am pas-pas ci wàllum diine ñu laaj leen nag naka la ñuy waajalee li nga xamante ni moom mooy gàmmu ji ndaw ñi ñu ngi ci di waajal tamit li nga xamante ni mooy ziar bi télévision Futurs Médias di leen wan nag lépp li nga xamante ni ñi ñi ñu ngi koy waajal ci wàccaay gàmmu gi lépp fi lañ leere mës ngaa ñëw Kaolack. man déedéet. yaa ngi doog ñu ñëw Kaolack <laughs> maa ngi doog a ñëw Kaolack. <laughs> bi nga ñëwee Kaolack yaa ngi cëppeelu Medina Baye. waaw maa ngi cëppeelu Medina Baye nga yëg ni dëkk bi dëkku leer la. Mm-hmm, dëkk bi dëkk leer la la preuve rek boo gisee fii da ngay gis jigéen ñi kenn defu ci bopp neen samay moroom ak ñeneen ñu mag da leen gis dañuy yiw dañoo yiw dañoo a góor ñi tamit noonu moo tax tey nag loolu rek la ñuy waxtaanee papa lislaam bangoog diine jàngook bis bu nekk yaa ngi gis liggéeyu mag ñi nga xam ni seen yitte seen yëpp mooy roy sunna sayyidina Muhammad waaye itam la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni balligu anni walaw ayatan na ngeen ma jotalal donte benn aya la na ngeen ma ko jotalal te al ulamaau warasatul ambiyaa yi borom xam-xam yi ñoo fi wuuti yonent yi moom la imaam Shafii radiallahu anhu waxoon ni borom xam-xam jëfandikoo seen xam-xam mu ni bu ñu nekkul wëlliyu yàlla amul wëlliyu in lam yakuni al ulama wal abidina awliya allahi mu ni fa laysa lillahi waliyun mi ngi noonu gaa yaa ngoog guur yàlla yaa ngoog ña ngay tàggat bakkan yi tàggat ruux yi sellal euh, jëmm yi fexe ba ñu bëgg yàlla bëgg Sayyidina Muhammad waaye itam tegu ci yoon wu nuy coow tey jii nag ñu ngi ci dëkku guuru yàlla bi nga xam ni liggéeyal diine ci réew mi waaye tasaare ko ci àdduna bi kooku mooy seexal islaam maam Baay yal na yàlla yokk leeram noonu laa dalalee sëriñ daara sëriñ Mbay ña ñas moom itam incha allahu taala nu war a waxtaan waaye itam mu war noo bégal ginnaaw ba ñu nuyoon nuyonte ak moom lenn ci zikrullah yi nga xam ni boo ko tuddee sa xel dem ci euh, kër Cheikh al Islam buñ ci génnee incha allahu taala daa ñëw ak moom moom itam waxtaan ak moom ci lan a waral ziar bi waaye itam lenn ci euh, góor yàlla boobu la itam mooy Cheikh al Islam euh, sëriñ daara bàyyi maa ngi lay nuyu baax a baax ñas ma bàyyi la nga nuyoo wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an ashabi rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim yaa himmata seyxi ahdur lana bi haasal mahdari wal taxtif li bi nasratin taati lana bi safar wa radiyallahu an barsaqil baraasix mumiddu rijaalillahi min qabli nasatihi mawlaaya cheyqi ahmad ibn muhammad attijaani wa radiyallahu an saaxibi alfaydati attijaaniya kaasifu alqumma jaabiru alkasri mumiidu rijaalillahi mawlaaya wa sheyqi wa murabbi wa mursidi cheikh ibrahima ibn alxaaji abdallah alkawlaqiyu ña ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi di la fay ña ngi nuyu suñ xalifa mawlaaya seex ahmad tidiane di ñaan yàlla yal na yàlla yokk ko di ñaanal suñ imaam imaam seex ahmad tidiane siise ña ngi nuyu waa pay bi yëpp di nuyu yenn tele bii nga xam ne déplacé nañ bàyyee ko Dakar ñëw ba fii ci dëkkab Madina Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu di ñaanal suñ sëriñ Abdullahi Muntaqa Niass yal na yàlla yokk ko dëgëral ko ci barke Baye Niass radiallahu anhu ña ngi leen di fay incha allah ba beneen yoon. jërëjëf e, tabarakallahu e, Serigne Mbaye am nañ mbégte lool ci dalal la fi télévision Futur yaakaar naa pays bi boo fi ñëwee te mooy dëkku Cheikh al Islam radiallahu anhu am na noo xam ni ca lañoo ñoo tàggatee ndaw ñi defar seen xol laabal ko. bu bëgg yàlla nekk fa ndax tudd yàlla dafay dalal xol ala bi zikrillahi tatmainul xuluub tudd yàlla dafay raxas xol tudd yàlla day faj xol bu feebar waaye fii ci Medina Baye am façon tuddin goo xam ne ñoom itam euh, boo ko déggee rek sa xel dem kër Cheikh Al Islam ma bëgg rek nag euh, nga léemoo nga léemoo noonu nga léemoo ñu ci bis bi euh, rawati ndax journée bi yëpp incha allahu taala fii ngeen di nekk ak télévision Futurs Médias Serigne Djily Niang mi ngi ñëw léegi Alhaji Ndiaga Seck fi lay defee jumaa ji en direct lay doon ci Medina Baye ak imam Cheikh Tidiane Cissé kon Serigne Daara ma bàyyi la nga bégal noonu. auzu billahi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 جعلتك يا خير الأنام صفيرا وكل سمان قد أراك مجيرا بك فيك رب القلق طرا وقصر وخيرك لم يلفو لديه نقيرا wa anta abibullahi wal mulku mulkuhu araaka aminan lil ilahi wasira fa barhamu asal abdu bilhaq wilaisun falam yaku yaqsa min siwa kamira yasidu lamani musakabtu bibabi رهود أدوي سرى ولا سيرا بين فهل يعصيا يون لدى كبد السماء نباء للمخلول كلا بدريرة فحب رسول الله خلم وراءة وإثن أراء للمحب مسيرا تقصد وداد المصطفى ومديئه جوادي والسيف والقنا وقفيرا بين وصى الجيش والسعد مبلق للمنى وساك لأمر الله إن إحمى نذيرا وهو قاتم لرسل وهو إمامهم فأول تلك الرسل جاء الحقيرا wa baatinum aqaan wa saalika zaa'iran fa jaa basiran lil jumuhi nadira baay ne fa aalaytu laa anfuku ansiju madaw wa kuntu li sulbil aashiqiina mudira fa ashqaytuhum naalan وعل وداده وبلى مدام القافلين الحقيرا سكارى بلا اسمنا وقول فيا لؤم سفى وقتهم والملاك كان كبيرا بمقعد صدق جالسين جليسهم ملك الجموع المالكين قديرا يسيرون سيرا في المجالس فعجبا لسير جلوس يصبحون سقورا وقد رتعوا في تلك روض المعارفنا تراهم سكوتا والمقام مسيرا كلام قديم لا يمل سماءه يكون على الجمع لا قديم قمورا قديمك هذا أشقه كل برعة وآيبي طولا ثمان قبورا قديمك ملك لا ملوك وأمرأ قديمك مخدوم لا ملوك الأميرا متان أمينا في الأوالم كلها فيفسدهم نحو لا إله بصيرا رجائي وسني في الأبيب وإبي كبير ألقاء كبير كبيرا بجاي عسيم جاي أحمد سيدنا ومن آجر أو من رأوا نزيرا عليه الصلاة إذ يفد قتامها تفوء لمن قد كان منك العذيرا كفاني مكر الماكرين وكيدهم كفى درا والبأساء النية والجفاء كفاني سرور الجنان والإنس من نفى دج الباء والأسواب بنور مستوى وألسمني سكر الأبيب ومدعوا عليه صلاة الله ما سارق قفا عليه صلاة الله كالقطر والعلا وكالأمر والأوراق ما دام مقتوى وكالقدر والمقدار بنا وزائرا مدى الدهر يا من قاد لي كل ما استوى محمد عبد الله سيد خلقه وسلم عليه وراء من وصرفا تجلى الأوسات العلية صادجنا وأين الأما والتامس مغتي ومتحفا فتمم رب الكريم أحبه وأكمل إسنا ومعنى ودعفا أباء وأداء وقرب ساتأ لأدرة الأولياء وأعطى ونيفا بارك الله baarakallaahu mbokk mi noonu waaye mais mais euh, Serigne yaakaar naa euh, xasida boobu nga wax Cheikh islaam wax na ko euh, ma nga cey wax digganteem ak borom waaye nag rawatina digganteem ak Seydina Mohamed yaakaar naa foofa lu ne lu ne ak cofeel yi bëgg Seydina Mohamed dégg naa ci fa xubbu rasulullahi waaye itam dégg naa ci yeneen i baat yoo xam ne dox gi nga xam ne Cheikh islaam dox na ko ci jëmmam ak ci yitteem ak xoolam ak lépp jox ko Seydina Mohamed ndax mën nga am ay bayt yoo ñu ci indil avant ñuy ñëw ci li waral ziar bàyyi dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jaaltuka yaa xayral anaami safira mhm. yow gën gi mbindeef def naa la ngay sama ambassade def naa la ngay ambassade ci kaw suuf te avant loolu yonent bi moo njëkk a wax baay ne ko def naa la ngay sama ambassade ci kaw suuf ra'aytu rasulallahi nassa bi annani safirun lahu fil kainati wa muxlisin nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax ne ma yow Sey Ibrahima Niass yow yaay sama ambassade waaye manin ma wëlbatikuwaat defaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk sa ambassade ci adduna bi wax na ne man Cheikh Ibrahima Niass ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngay texe bi ka fay ul xalqi turan waqu suruhu mbooleem ku la bëgg rek si ñaari tënk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay nit di texee waaye nag bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay nit di texe dee kon nga gis ne baay lu mu wax ci yonent bi sallallahu alayhi na ne ko bi ka fayka ribul xalqi turan wa qusruhu wa xayruka lam yalfu la day ina waaye mu ne ko wa anta habibullahi wal mulku mulkuhu yow yaay soppeb yàlla bi mhm. te nguur ak yàlla ga moom mooy sa nguur gi yow yonent bi sallallahu alayhi wa nga gis ne yonent bi sallallahu wa sallam moom la naar ba doon wax ne ko wa anta baabullahi ayu imrihin ata umin xayrika laa yadxul yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yaay buntab yàlla ku bëgg a dugg ci peeg yàlla ba wala ku bëgg a àgg ci yàlla buy jaaru ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dem du mhm. nag la bàyyi xam moo tax moom lekka ak naana ak yëpp ndax wax na ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama lekk am na fu mu koy wax ne fa huwa akli wa sara bi yonent bi mooy sama lekk waaye yonent bi mooy sama naan wa huwa diini wa jinaani yonent bi moom mooy sama tool moom mooy sama aljanna wa huwa unsi wa huwa kansi yonent bi moom mooy sama tool mooy sama wéttal wa amini wa amaani wa rubuhi wa qusuuri wa huwa xayraatul isaani waxaan nañu ne man si Ibrahim Ñas radiyallahu anhu ne qad ahbabtuhu ataa araaniya kuntuhu wa rabbi lam yaxluq makaanan wala waxta bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wa salaam bëgg goo xam ne mu gi dem na ba mujj gi yonent bi nekk ma man bàyyi mu wax ne booba makkaan amagut waaye asamaan tamit amagut mooy booba yàlla bindagut la nga xam ne moom mooy asamaan bindagut suuf mhm. bàyyi nag mu ne man yonent bi sallallahu alayhi wa salaam fekk na booba ma bëgg ko ba mujj ma nekk yonent bi sallallahu alayhi wa salaam bàyyi lu tax yàlla may ko lii mu ko may mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xubbuhu soxlul janaani mhm. njëkk mbindeef di am man baay sama soxla mooy bëgg yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne sëriñ bi baa ñes radiallahu anhu dundam gi yëpp daf ko financé ci bëgg yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xam nañ ne ku bëgg dara ku bëgg lu baax boo jaaru ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallam am baay ba tey mu ngi wax ci woy wi ne yonentu booba sallallahu alayhi wa sallam moom moo mujjee ñëw ci yonant yi waaye nag moom moo moom moo njëkk mhm. ndax yonant yi bëri woon nañ nuuhun ñëw na fi aadama ñëw na fi ibrahima ñëw na fi ah ismaila ñëw na fi mboolem yonant yi luñ bëri bëri ñëw nañ waaye yonant bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo mujjee ñëw waaye nag yonant booba nag ba mujjee ñëw moom moo mujj nekk seen njiit ñoom ñëpp ndax gaa yi lu tax ñu doon ñëw mooy dañ doon wane ne rek am na kenn koo xamante ni mu ngi ñëw ci mujj ak jamono kooka lañ doon publicité comme tey président buy ñëw la nga xam ne mooy Kaolack balaa muy ñëw il faut que dana am ñu ko fi jiitu ñoo xam ne danañ danañ xool tali bi danañ xool dëkk bi nu mel di wane ne. président ma ngi fiy ñëw waaye nag moo tax yonantu yooyu doon fi ñëw dañ doon wane na am na yonantu boo xam ne bu xasee ba ñëw kenn dootu ñëw moo tax bàyyi ne te aqara baada ruslin wa huwa muqaddamun fa diddun bi diddi xayaral qalba walu baa mu ne yonantu bi sallallahu alayhi wasallam moom moo mujjee ñëw waaye nag moom moo njëkk mu ne loolu nag moom safaanu safaan la ndax mujj fi ba pare njëkk fi man kenn mënu koo nangu ci xel waaye nag ci yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ci la ko yàlla mayee loola. ndax ndax ci leeram la yàlla bindee lépp moom moom la yàlla njëkk a bind alayhi salaatu wasalaam. moom la njëkk a bind ndax bàyyi nee na nuuruhu awwalul wujudi wujudan mhm. fa huwa aslul usuli wala anjaaliya lam yasala nuuruhu bi aynil ilaahi fi intiqaalina fi lkawni baada intiqaaliya summa ataa allata yaa wa tajalla nuuru fi abdil ilaa ilaa liyaa nga gis ne bàyyi nee na nuuruhu leeram nga moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam awalul wujudi wujudan mbooleem lu njëkk am leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo la moom moo la jiitu suñ maam alaaji Malick wax na ne wa innahu is araada allahu nasatana abbaana min nuurihi nuuran nabil alami nee na yàlla ba mu bëggee amal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la faccal ca leer goo doo wax ne ci la ndax yàlla bu xaajee day mel ne dafa manqué waaye ca leeram gën a bëbbalee la nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer googa nga xam ne mooy xaqiqatul muhammadiya moom la bàyyi topp ne leer googa mësul di dañ di aw ci ay ndigg yu laab di bàyyeekoo ci ndigg yu laab di dem di dem ba agsi ci ka nga xam ne moom mooy abdullah gis nga ne yonent yàlla aadama doom yi mu daan jur seex lay doon waaye keroog ba nga xamee ne leer gi ma ngi ci te aqiqatul muhammadiya kenn rek moo koy amee mu ñëw ci siisa siisa moo ma amee leer ga nga gis na ba leer goo ko duggee ci ka xam ne mooy abdullah gaa yëpp di ko sàkku naan ko abdullah ñëwal si rek man ma jox la téeméeri gilem abdullah ne leen amal araamu fal mamaatu fal mawtu duunahu wal xillu laa xilla fastabin bayaanuhu mm. mu ne leen def lu araam man abdullahi dee moom moo ma ko gënal ndax xam nañ ne leer gu nekkoon ci abdullah mooma moom manta mooy yàlla waaye gars yi nag moom lañ doon gis abdullahi moomu nga xam ne mooy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaa gis nga keroog ba nga xamee ne moom baayam mébétoon na bu amee téeméer euh, fukki doom dana rey kenn ka jaamoo ko yàlla nga gis ne bañ wantalee bant ba ci abdullahi la dal lan moo tax bant ba di dal ci abdullahi mooy leer ga ci moom la nekk bañ àggee sa ka nga xam ne moom mooy eh, seen seetkat ba mu ne leen bu ngeen àggee da ngeen ni jël gileem ngeen ut fukki gileem teg Abdullah bu ngeen sànnee bant bi bu dalee ci gileem ya su boobaa ngeen dolli fukki gileem moom lay suñ maam alaaji maali tamit wax na ko ci xilaasu sahab mu ne dolli leen dolli leen mhm. bu ngeen dollee ba mat fa siidu fa siidu doona ma sahami doona ma sahami mhm. jërëjëf <laughs> nga gis kon ñu dolli ba matee téeméeri gileem mhm. ci la bant ba daal di dal ci ka nga xam ne moom mooy Abdullahi Abdullahi moomu tamit daal di mujj daal di mucc kon nga gis ne leer googu ci kum dem rek danga am ay gàllankoor yu nekk ci yow waaye loola nag nattu dafay yokk maqaama yi yu góor yàlla dafay yokk maqaamay nubuwa nga gis ne leer googa nag ba mu demee ba Abdoulaye mu daal di sonn sonn ndax gars yi ña ngi koy sàkku mu dem ci baayam ne ko ñaar moo mën a am nga takkal ma soxna wala boo may yónni nag ma yónni ci kër gi ndax sonn naa ndax jigéen ñi fu ma génnee rek ña ngi may daal di topp di ma sàkku te boobu topp gi ñu koy topp leeru Sidina Muhammad moo ne ci ndigg la moo nekk ci ndiggam li moom wax leer googu moom moo nekk ci ndiggal Abdullah muy mhm. nuuru awalul wujudi wujudan leer googu nag ba mu nekkee Abdoulaye moomu nag Abdoulaye moomu nag ñu may ko ka nga xam ne moom mooy Amina moom mooy Amina Amina moomu nag ñëw Abdoulaye nag nekk ak moom daal di jëlee ci la nga xam ne moom lay jigéen di jëlee nga gis na leer googu tuxu na ci la nga xam ne moom mooy ah, Amina moom moo tax suñu alaaji Malick wax na ko nee na Aminatu bintu Wahbin ابن عبد المناف ابن سورة أم المصطفى العالمي nee na Amina moomu moom mooy moom mooy nday yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ummul Moustapha al alami ka nga xam ne moom adduna bi yëpp tey ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ mën a jaar doog a a mucc nga gis ne kon nag leer googa sëñ bi moom la gaa doon topp muy dem di dem di dem ba agsi nag ci nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag moo tax nag ba agsee ci yonent yonent bi juddu leer googa nag daal di wàcc ci yonent bi waaye nga gis ne dëgg-dëgg bay wax nañu ne yonentu booba sallallahu alayhi wa sallam njëkk muy ndax dañuy wax ne yonentu ibnu abdullah dafa am waaye yonentu rasulullahi moom it dafa am yonantu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy comme leer gi nga wax léegi ne nuuru awalul wujudi wujudan leer googu ala kulli alin lépp lu am rek leer googu moom moola moom moo la féetee kaw mhm. waaye nag ci muhammad ibnu abdullah foofu la wàccee nag nekkaat muhammadu ibnu abdullah mu juddu nit ñi di ko gis mu mu nekk koo xamante ni adduna bi yëpp ñëw nañ ci moom ndax xam nañ ne dëgg-dëgg kii mooy mucceekaay kaabi ku ku bëgg a mucc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngay aw doog a mën a mucc loolu nag la bàyyi xamoon moo tax nag moom at dundam gi yëpp mu jaay ko ci la nga xam ne mooy bëgg yonent bi ndax nee nañu nu waxidu mawlaana bi ahmada numinun wa bi rusli wal amlaaki wa huwa muhayminun mu dem bam yàgg ne la wa in kuntu lam ursin madi a muhammadin wii usawidu awraqan bi ubbi ko uxlina sëñ bi xoolal loolu bàyyi nee na man bëgg naa yonent bi ba tey bu ma demoon ba mënatumaa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa damay ut sama xalima ak kayit di def ay toq to ay tomb tomb mu ne tomb tomb yuy sax dafay waral ne man bàyyi damaa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko gis rek da xam ne kon tomb tomb yooya mhm. bëgg yonent bi moom moo tax waaye nag dëgg-dëgg du tomb waaye lan lay def moom mooy dafay bind ndax wax nañu ne dem naa ba pari waaye gis naa fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te foofa yaakaar naa ne ku fa dem rek mbir yenn yi moo la fa yóbbu waaye Baay dafa wax ne raaytu rasulallahi jëhran wa yaxsatan bi sa barisa alsaka mahalama aluhu dem naa ba Paris foofa nga xam ne kàccoor yi fa lañ ëppee mu ne man nag gis naa fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom dëgg-dëgg adduna ay xoolam ay bëtam ay nelawam yëpp moom mooy yonent bi yonent yàlla Muhammad jërëjëf jërëjëf mbokki mi noonu yaakaar na mboolem tey soppe Sidina Muhammad yi bik nga waaye yaakaar naa mbooleem koo xam ni njabootu Cheikh al Islam nga radiallahu anhu waaye tey am na leneen loo yëg am nga beneen fàttaliku booraan def euh, fii la daan toog ci euh, bo ci ron jumaa ji moom Cheikh al Islam radiallahu anhu xam nga bu gàmmu daan dëkkmal nga xam ne na mu ko daan waajee na mu ba noppi gàmmuwaat njaboot gaa ngi nii dégg nga cofeel gi nga xam ni am na ko ci Seydina Muhammad dem na dem ba wax ni su ma demoon ba amatuma lu ma wax ci rasulullah gi danaa jël xalima jël fooy waaye itam da ci def ay tomb tomb yooyu benn bu ci nekk mandarga la ci bëgg Seydina Muhammad euh, Béti Madior yaakaar naa dégg nga euh, sëriñ daara ni mu wax waaye xale yi ndaw yi nga xam ni léegi si di way juri yaakaar naa jeex nañ tàkk ci bëgg Seydina Muhammad euh, ngay ndaw di jigéen yaa ngi dem ci daayira yi yaa ngi dem ci association yi yaa ngi dem ci xew-xew diine yi yaa ngi nekk ndaw ñi nga xam ni ndax yëkk nga ñoom itam am nañ beneen taxawaay ci diine ji waaye itam am nañ beneen taxawaay ci bëgg Seydina Muhammad ñoom ndaw ñooñu dëgg la ndaw ñi am nañu beneen taxawaay ci diine ji beneen taxawaay tamit ci bëgg Seydina Muhammad sang-sang yi géeru géer ñi ba tax na papa nee naa la ñun ndaw ñi fu mu nekk nii dañu gën a dañu war a gën a farlu ci suñu diineem nee naa xëy na yàlla moo ñu ko nattoo jamono ji gis ngeen ni événement yi bëri na trop tant yeeg tantal na bi conférence yi léegi conférence boo dugg tantal na bi boo dugg ndaw ñee ko organiser hmm, papa da nga koy gis ndaw ñi ñooy organiser événement yooyu ñu bëgg ñu xam ne nii rek ne yàlla moo ko waxoon jox ma sa ndaw ma denc ma teel la sa mag ba tax na damay gën a ñaax sama mbokk ndaw ñi ñu ñu dem jàngiwaat di fréquenter ëttu diine yi di fréquenter tant yi ndax loolu dinañu muccal bu baax. Euh, dinañu muccal euh, éléments yi nga jëloon sax jotul dafa jotul noppi moo tax euh, téléspectateurs yi kay xaar aljuma ju jot duñu ko gis tey. Mhm. waaye bi nga demee jëli ndaw ñi ñi nga xam ni njabootu Cheikh al Islam lañ. Mhm. ñi nga xam ni njabootu Seydil Hadj Malick lañ ñoom itam di waaj gàmmu gi. ak mhm. ndaw ñi nga xam ni njabootu Cheikhul Khadim lañ njabootu këri këri këru diine ji lañu. ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngay waajal gàmmu gi bi nga demee jël leen ban ndaw moo la ci wax loo xam ni jàpp na la ba léegi. boo demee sa yaram dafay daw sax ndax da gis ndaw ñi ña nga ca jàngum tey réussir bi ña ngay zikkar ña ngay zikkar zikkar àla Baye Niass lu ma ci gën a neex mooy pap ña ngay jàng la ko mun di zaatul xaasatal kullal wara ca kaw soo leen waxee ñu ne la en route vers la gàmmu la lépp ngir guddib Seydina Mouhamed bi màggal ko nee naa la kookooy géeru géer ñi nee naa la papa kookoo ñi plaidel ba su tiitaange ga hmm, kookoo ñi plaidel ba su tiitaange tiitaande ga de moo tax damay gën a ñaax sama mbokk ndaw ñi rek hmm. ñu gën a farlu ci wàllum diine ji gàmmu gi di ngeen gis dinañ dem fekk ndaw ñi fu ñu mënti nekk waxtaan ak ñoom Euh, laaj leen naka la ñuy waajalee seen gàmm. incha allahu taala Bitima Dior jërëjëf yal na yàlla gën la barkeel yow itam euh, sëriñ Daara yaakaar naa euh, tey mboolem ko bëgg Seydina Mouhamed wala ngay njabootu Cheikh al Islam ngay ngay julit ngay jullit am na yëg-yëg boo xam ne tey am nga ko ci ëtt bu tedd bu barkeel bi mais radiyallahu anhu Cheikh al Islam bu waxtu wi daan jot bu waxtu wi temm nga xam ni rabiul awal mi ngi dugg si nga xam ni. ma ngay am lu muy waajal guddig juddug Seydina Muhammad radiyallahu anhu si al islam naka la ko daan waajalee. alhamdulilah <clears throat> beneen yoon lam njëkk a wax mooy tabibi qaribun hal siqaamiya tasmahu yuqaabiluni l yawmi l muqaffal musafahu dafay wax naan feebar bi na nga bàyyi xel ne sama médecin bi jege na ndax yow feebar bi yow yaa ngi may dégg waxtu yi daan ñëw baay du ci feebar ndax lan doctoram bi moom mooy teew te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwaan baay kenn gënu koo tabe waaye tabeem daf daan yokk da daan solu kenn daq ko solu waaye lam daan solu daf fay yokk da daan kaalawu waaye kaala nga daf koy yokk mbaa xam nga daf koy yokk jàngaleem ba daf koy yokku lépp daf koy yokku ndax lan teeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ngir waajal guddi juddug Seydina Muhammad. ngir waajal juddu googu. sallallahu alayhi wa sallam bañ na ko. ba mhm. tey tafsir bi suñ sëriñ ña ko ziyaare Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass tey takkusaan gu joor rek daf koy def ci bayaal bi waaye kan la ko gisee ak kan ci kan la ko doonee mooy ci baayam Mawlana Cheikh Ibrahim. Mhm. bu waxtu wi daan jot tafsir bi weeru koor la woon waaye dañ ko waaye bu demee ba nga xam ne nag ziyaara ma ngi ñëw ñu jublu gàmmu su boobaa tey boo ñëwee Medina ña ngi tafsir ndax lan teeru juddug yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëkk bi daan na taaru waaye nag bu weer wi ñëwee su boobaa dafay gën a taaru ndax lan yonent bi sallallahu mooy leer te leer fu mu war a dem da nga koo war a waajal bàyyi ñes radiyallahu anhu waxtu wi bu ñëwaan ngay gis ne bu demee ba gàmmu jot mag ñi lu ñu nettali daf daan sangu sol lu baax sol lu gën a rafet ci ay yëreem seet lu gën a rafet ci ay dàllam mu sol ko xool dokkam bu gën a rafet ci dokkam yi mu sol ko génn këram taalibe yi di ko si si sikkar di si ba bam agsi si bayal bi te 10 heures la daan commencé gàmmu ba 10 di jot daa la wax wax yonent cosaanam njëkk muy juddu daa la wax yonent bi gannaaw ba mu juddoo dana la wax yonent bi kan moo ko nampal dana la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ba yaayam génne àdduna kan moo ko amee baayam ba mu génne àdduna dana la dem ba ci xaswa boo xamante ni dana dem ba ci fatul makka te dëgg-dëgg yow mu jàng xam nga ne loolu xajut ci benn guddi waaye nag moom lépp. dana ko wax ba jël fatxul màkka ba keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan loolu lépp Baye Niass dana la ko waxal ndax lan moo tax mooy bëgg yonent wi sallallahu alayhi wa sallam moo tax daal weer wi bu ñëwaan baay dëgg-dëgg dafay gën a tabe dafay gën a baax dafay gën a yokkul lépp loo xamante ni mbaax la rek weer yi bu ñëwee Baye daf koy yokku ndax lan bëgg gum bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa salaam mais ñuy waajal ziar bi nag defe naa tey jii nga xam ne mooy bésu ziar bi. Mhm. mag ñi nga xam ni moom ñoom Cheikh al moo leen ay muxaddamam lañ ñoo newoon ñoo newoon ci moom. Mhm. Euh, daan ko waajal bés boo xam ne moom ni muy préparé bi euh, guddi gi dugg si ginnaaw Mouhamed. Mhm. ñoom itam ñu ko daan amal bés boo xam ni. ñoom mag ña nag ku ci mel ni Serigne Alioune Cissé ak yeneen i mag ñi nga xam ni ñoo daroon Cheikh al Islam radiyallahu anhu. ñoom itam daan dem ca moom daan ko wan seen cofeel te moom daan yokkoo jaayanteeg bi ñu jaayanteeg moom mu doon nekkoon bés bi tuuti euh, pour nga wax ñu rek tuuti ci ziar bi nga xam ni moom la ñoo def tey jii incha allahu taala. dëgg la ziaram mooy dolleeku. Mhm. te Baye dafa wax ne boo dindee benn racine gi mu nekk. sang mhm. sang mang ci dolleeku mang ci. Mhm. mag ñi ku ci menn Sëriñ Mbay Ñas radiyallahu anhu ñu ngi ziyaare xalifaam muy alaaji barhamu kër ma jëbel ñoom ñu ñu ci ñu ko sos ci la bokk ku ci mel maam Ibra Fall ñu ngi ziyaare taawam ku ci mel na sëñ Aliou Touré ku ci mel ñoom mag ñuñu Seydi Aliou Cissé mii nga xam ne moom nga tudd ñoom ñuñu ñu bëri nag ci mag ñi ñoom ñoo dajale woon ne lu may ñun bàyyi daf ñoo defal teraanga goo xam ne mënuñ koo fay fokk ñu di jàpp bis yoo xam ne dañ koy ziyaara ndax koo xamante ni kat xamoo woon yàlla mu yóbbu la ba nga xam yàlla su boobaa kooku loo ko jox mën a tookaa fay kooku kay da ngay def ngir yokk mhm. waaye mënoo koo fay te mag ñu ñëpp ñu jàngoon amoon xam-xam lañ fees dell waaye nag am na lu manqué woon ci ñoom te mooy fexe xam kan mooy yàlla ndax alquran ndax yàlla ci boppam moo wax ci hadiisu xudsi ne taarifuuni qabla an taabuduuni da mhm. ngeen ma xam njëkk ngeen may jaamu mhm. bu ngeen ma xamut nag ngeen may jaamoo kiiraay googu nag moom la bàyyi dindi woon ci mag ñi ba mag ñooñan ne dañuy njukkal bàyyi donte nag mënuñ koo fay waaye nag dañuy ziyaara te yàlla wax na ci xadiisul xudsi ne xaqat mahabbati lil mutahaabina fiya wal muta jaalisina fiya wal muta baalisina fiya wal muta saawirina fiya yàlla nee na man sama mbëggeel war na ñi nga xam ne dañoo bëggante ngir yàlla war na ñi nga xam ne dañuy joxante seeni alal ngir yàlla kon ku bëgg yàlla bëgg la mooy da ngay ziyaare sa sëriñ te wax na ne ziyaara su boobaa xomaat yu nekkoon sa xol bi dafay mujj dañ ndax lan moo tax mooy ziyaara ba ngay ziyaara nga gis ne yàlla wax na ne sama mbëggeel war na ña nga xam ne dañuy ziyaare ante ngir yàlla loolu la mag ñi xam moo tax ñuy ziyaare Mawlana si Ibrahima ma radiyallahu anhu mais mais ziyaare bi bañ koy sos di ko dem di ko ziyaare Cheikh al Islam mi ngi mi ngi mi ngi euh, euh, euh, làqoogul booba ndax ñu ngi dégg ci kaset mu wax ne ziyaare ñëwoon ngeen fi daaw fekku leen ma fi waaye fekk ngeen fi yàlla mu wax ne daaw jéeg ñëw ngeen fi daaw tamit ñëwaat ngeen fi fekk leen ma fi fekk ngeen fi yàlla waaye mu wax ne tey nag ñëw ngeen fekku leen fi ba tey waaye yàlla ngeen fi fekk kon nga gis ne ziyaare nañ ko te fekk ne booba moom ma ngi ma ma fi ma ngi dund su boobaa nag nga gis ne kon ziyaare bi yàlla rek moom moo tax góor yàlla yu mag ñooña daan ko defal Mawlana Sey Ibrahim mais jamono bii ñu tànn ñu xam naa tax mag ñi tànn noonu ko ndax cofeel gi am ci Seydina Muhammad mm. nga xam ne bu daan toll fii moom Cheikh al Islam day mm. bég mm. xam naa euh, moo tax ñu tànn jamono bii nga xam ni euh, rabiul awal si pour euh, guddik juddug yonent bi alayhi salatu wasalaam walaay mu nekk ndollal ci kaw ndollal mm-hmm. ndax la in shakartum la azidannakum yàlla daa wax ne bu ngeen ma santee rek ma dolli kon nga gis ne lii te tamit dafa gën a baax ci gan ya nga xam ne dañuy bàyyeekoo ay Nigéria ñuy ko ay Maroc ñii di bàyyeekoo euh, euh, Amérique ñii di bàyyeekoo mboolem dëkk yi ala kulli haalin foo mënta lim rek. ci mhm. adduna bi rek dana ñëw ndax ñooña nag bu ñëwee fekkee ziyaara bi toog gàmmu gàmmu waa doog a mën a ñibbi ndax ñooña buñ oote woon ziyaara bu dee ñetti fan la ñeenti fan la. Mhm. wala fu wala weer moom moo des ci gàmmu gi bu ñëwee tamit danañ dellu jaat ndax lan moo tax ñoom bàyyi sonn seen xol bi ak seen dënn yi leer ga nga xam ne ñoom ñemeetuñoo ootee fu ñu ootee bàyyi ñu sadiallahu anhu ñu bañ ñu bañ ñëw ndax lan moo tax mooy bàyyi xam nañ xam nañ kan mooy baay te xam nañ tamit baay bëggum bëgg yonent bi moom nag ñoom nag ñun mag ñi ñoom mag ñi ñoom it ñu fexee tamit bëgg baay gu nga xam ne bëggoon na ko yonent bi ñoom ñu aw ci tànk baay ñi sadiallahu anhu ndax baay dafa wax ne isa saara xayru naa si surtout waraahu wa in xalla yawman fal masiru bahidun gën gi mbindeef bu doxee rek man ma dox bu taxawee nag dox dootu am yonent bi buy taxaw rek adduna bi di tukki mhm. rasulun min al mawla wa aadamu lam yakun wa yabqa rasulan daiman wa muassama bàyyi mu ne rasul bu bàyyeekoo ci mawla ci borom bi te booba aadama amagut nga gis loolu mu nekk lu kéemtaan rasul bu koo ci aadama te booba ci yalla ta booba aadama amagut bàyyi mu ne la wa yabqa rasulan daiman wa muassama yonentu booba dafay des ba àdduna di tukki yonentu booba dafay mujj dafay des loolu nag moom la gars yi xamoon moom moo tax nag ñuy njukkal Baay Ñas ngir ziyaara bii nga xam ne mooy ziyaada ak la nga xam ne moom mooy sang baarakallaahu jërëjëf euh, sëriñ Daara xaj euh, Mbay Ñas ñu ngi lay ñaan yow itam yàlla na yàlla gën a barkeel xam-xam bi mbokki mi noonu gars yi yàlla yaa ngoog mi ngi noonu gis nga njabootu Cheikh al Islam radiyallahu anhu waaye gis nga mag ñi nga xam ni euh, ñoo daan waajal ziar bi nga xam ne daan nañ ko ziaral góoru yàlla bi nga xam ne mooy Cheikh islaam dégg nga mag ñi la ñu waxoon mooy li ñu bàyyi defal amuñu lu luñ ko war a njukkalee mooy lu dul ñun ñëpp ñu dem ziara ji ko nemmeeku ko waxtaan ak moom waaye itam gën a yeesal suñu cofeel ci moom ko ñu ko daan dàkk ci waxtu bi nga xam ni ñoom yëg nañu ni góor gi dafay nekk ci xaalu mbég yëg nañu ni góor gi dafay nekk ci xaal boo xam ni euh, xaal bu jéggi dayo lay doon ndax cofeel gi nga xam ni am na ko ci sidina Muhammad alayhi salatu wasalaam moo tax dañ daan ba gàmmu jege si rek ñu dajaloo ñoom ñëpp dem ziyaara ji Cheikh al Islam radiallahu anhu loola war a télévision Futurs Médias moom itam aljuma ji nga xam ni euh, ziar bi aljuma ji lay tombeel ñoom itam ñu ñëw yendu fi ak yéen nekk ak yéen def ko en direct ci julli jumaa ji incha allahu taala bu leen fàtte ni euh, gàmmu gi télévision Futur Média dana ñëw fii ñoom itam wane ko adduna bi waaye itam gàmmuwaat gi group bi yëpp daañu ñëw euh, wan ko adduna bi yëpp incha allahu taala xam na waxtu waa ngi bëgg a jot euh, béti incha xam naa élément bi du du yàqu wan wanuñu ko téléspectateur téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi jàkkaarloog télévision Futur Média waaye yaakaar na ci interface Facebook bi am na loo xool loo xam ni ñi nga xam ni ñu ngi safoo Euh, yeewu leen plus euh, ñu ngi def commentaire yoo xam ni ñu ngi koy béggee bu baax a baax. Mm-hmm. boo demee ci page yeewu leen plus bi di nga ko fekk ay commentaire boo demee ci page leen plus bi di nga ko fekk ay commentaire ak ay message mu mel ni ndaw ñi safoon nañ li nga xamante ni mooy yeewu leen plus ndax yeewu leen plus daf leen di gën a tax ñu xam seen diine xam fu ñu teg seen tànk papa. Euh, dañuy gën a xam seen diine xam fi ñuy teg seen tànk waaye mhm. boobaak léegi yàggatul yàgg yàggagul waaye éléments yi nga xam ni yaa ngi ko doon jëli di xool jigéen ñi naka lañu ñu war a muuroo ak mhm. jigéen ñi nga xam ne dañ daan sol lu bon a bon a bon ak mhm. tubay yu seere yooyu ñuy sol euh, ñi ngi ko daan laaj dañuy wax ne ñoom ay doomu julit lañu ñu ko daan laaj dañuy wax ay doomu jullit lañ tax na ba bu ma dajee ay nit sa papa dañ ma naan ñëpp bëgg nañ muuru ndax yeewu leen plus ijab de la semaine chaque semaine di ngeen ko am ci yeewu leen plus wan dinañ leen wan ay modèle naka ngeen defee seen ay tuto turbo naka ngeen di nuwee seen ay fulaar euh, mu gën a yiw mu gën a taaru. mais am na ñoo xam ne dañuy muuru comme ni nga muuroo li mais li dañuy sol yëre yu sax yu seere yu seere sax. waaw am na ñoo xam ne moom dañuy muuru leen di gën a ñaaxaat rek yére yoo xam ne mënul julli ndax da dafay dang ci seen yaram seen i cër yëpp génn ba pare dañuy wax ne ñoom dañuy muuru muuraay boobu ñuy muuru pour lan loolu euh, ñenn ñi modd moo tax ñu koy muuru papa modd moo tax ñi waaw dañu gis ni comme gis nañ benn béti bu muuru ñu ne ñoom tamit xaaju dem def ko ndax rafet na euh, muuraay man dama ne booy génn da nga war a sol lu yiw hmm? da nga war a sol loo xamante ne dafa war a yiw boo génnee da nga war a doon ambassadrice su islam fu la waxtu mënti julli fekk nga mën faa mun a jullee loolu laay gën a ñaax sama mbokk ndaw ñi ñuy gën a sol ay yére yiw ah war markaala gi. Euh, lan ngay dénk ndaw ñi nga xam ni euh, dañu judd seen i waajur di ay jullit ñu yar leen ci lislaam ñu dem ba toll benn jamono bi jamono bëgg leen a fëkk jamono bëgg leen a këf ci yenn yi nga xam ni euh, yàlla bëgg ko Seydina Muhammad bëgg ko. Euh, mag ñi bëgguñu loolu lan ngay dénk ndaw ñi pour ñu waññeekuwaat dama leen di gën a ñaax pour ñu wàññeekuwaat ndax yàlla moo ko waxoon jox ma sa ndaw ma teel la sa mag ba tax na ñoomit fu ñu mënti nekk xam naa ñu ngi seetaan ñu gën a bàyyi xel ne ni ndaw dafay wees ñu gën a bàyyi xel ne ni ndaw dafay wees jublu si li nga xamante ni moom mooy borom bi jublu ci jàngum alxuraan bi gën a xam seen diine jërëjëf Mbette Madior mbokk yaakaar naa tey mboolem ku jàkkaarloog télévision Futurs Médias am nga mbégte euh, Serigne Dara waxtu waa ñuy xoj waaye nag fi ngay daanelee nag mooy bala ngaa tàggoo euh, mooy nga defal ñu benn zikkar euh, bi nga xam ni ku ñëw mën na bàyyi miin nga ko léegi da nga jël lenn ci xasida Cheikh al Islam waaye zikkar la ñu bëgg balaa ilaha illallah googu. waaw gannaaw loolu ñu bala ngaa tàggoo. Uh-huh. ñu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 jërëjëf euh, macha allah sëriñ Daara xaj euh, mbay bég nañu am nañ te lool ñu ngi lay ñaanal yow itam yal na yàlla gën a barxeel barkeel xam-xam bi incha allah taala xam naa yeneen i waxtaan dina ñëw mu gën a yaatu euh, ñu dalalaat la nga gën ñoo béralal ka day seexal islam waaye itam diggante mag Cheikhuna Tijaani it incha allahu taala daañ ci gën a ñëw ci yeneen i plateau yi nga xam ni mi ngi ñëw fii lay doon ci Medina Baye ma bàyyi la nga tàggoo bismillah di gërëm Maulana Seex Ibrahim ñas radiyallahu anhu nga xam ne lii lépp moom la di gërëm xalifaam di gërëm imaam di gërëm waa Madina yëpp suñ bàyyi ñu ngi koy gis muy Muhammadul Amin ma ngi nii doon nekk ak Maulana Seex Ibrahim Niass radiyallahu anhu nga xam ne taarix yu bëri tey xam na ko ci pays bii nii ña ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax a baax di ziyaare waa pays bi yëpp mboolem njabootu Seex Ibrahim ñas yi ña ngi lay ziyaara ndax Baye moo waxoon ne talabtukum fil xaybi wa antumu awliyaullah sàkku naa leen sama doom yéen ñëpp ci xaybu te yéen ñëpp ay wàllu yàlla ngeen kon dëgg-dëgg ña ngi ndokkeel ñëpp di ndokkeel awsa yeeg yoro baay yeeg yëpp nga xam ne teew nañ ndax Baye dafa waxoon awaluhum hawsa wa ahlu jarma kazaka da gumma fi amma wa jaani yoroba kasaka muusi wa wanqara wa jaani munfusi kazaka katkuli wa farfaraw ataw kazaka qunja wa min faydu rawaw wa qawmu xurma wa busanqa wa fula aqasu ani wila xurun sun kusaasa wa lubbi barquda qaati fa azalu nasabi ñun ñëpp ñëw nañ te ñoom ñëpp tey ña ngi ci Medina Baye kon ña ngi gërëm alaaji Abdoulahi Muntaxa Ñas mhm. moom ma nga xam ne lii moom moo ko waral ay itteem yëpp nekku dara lu may fexe ba pay bi jëm ci kanam dara taxul lu may lan liggéeyal Baye Ñas radiallahu anhu Abdoulahi Muntaxa samp na fi rajo waaye rajoom bi yëpp ci tudd yàlla rek ci la ñu nekk guddi ak bëccëg nit ñi ña ngi yokku ci la nga xam ne moom mooy sikkarullah ndax wax nga ne léegi ala bi sikirillahi tatma inul xulóobu ku ci mel ñoom Baye Marie Diagne ñoom Pape Makhtar Diouf ñoom Muniru ñoom ñëpp ña leen di ziyaara bu baax di ziyaara Abdullah di wax ne lépp lu mën a ren yal na man déwén lu ko ëpp yal na yàlla yokk ko ci barkeb Baye Niass ci barkeb maamam ci barkeb euh, sëñ Mamour Niass yàlla man na ko yal na ko yàlla def Abdoulaye Mountakha ñu ngi koy gërëm beneen yoon di ko gërëm ndax lii lépp ci itteem la ala kulli haalin yal na yàlla may ñu ay Abdoulaye Mountakha yu bëri ci barkeb Baye Niass ci barke allahuma salli ala wa axiru dahwana an alhamdulillahi rabbil alamin Euh, Bity Madior mu bàyyi la nga tàggoo. waaw di tàggu mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan à travers la télévision Futurs Médias di leen jox dig daje àjjuma incha allah di gërëm sama yaay di gërëm sama papa di waale bu baax ak ki nga xamante ni moom moo ma solal ba ma xam ne damay dem Kaolack la bu jël benn yére daal di may jox ne ma boo demee nga daal di koy sol ma koy gërëm bu baax de passage. jërëjëf Adja Bity Serigne Dara jërëjëf Niass mbokk mi ngi noonu. incha allah taala ñu ngi fii ci Medina Baye wax naa leen dara du leen ump waaye bu leen euh, toog leen xaar yeneen plateau ngi ñëw incha allahu taala xam ngeen ne julli jumaa ji en direct lay doon fii ci télévision Futurs Médias ci Medina Baye ñu ngi leen di jox dig daja ca kanam incha allahu taala seen émission boobu di siira fii lañ koy defee Serigne Djili mi ngi ñëw Serigne jaga sekk mi ngi ñëw Sida Dia Fat bintu Diop groupe Futur Média ñoom ñëpp déplacé wu nañ ñu ngi fii ci Medina Baye Abdoulaye Mountakha nu ngi lay ñaanal yal na yàlla gën la barkeel yàlla gën la dolli ñas nuyu xalifa bi nuyu euh, imam Cheikh Tidiane Cissé nuyu mboolem njabootu Cheikh islaam Islam euh, Baye Cissé moom itam di euh, Baye Fallou Cheikh al Islam moom itam nu ngi koy nuyu baax a baax a baax ci kanam lay doon ak télévision Futur Média fii ci Medina Baye wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. barakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seyda macha allah.